alors ba tey ñu ngi ak yéen fi nga xamante ni rek euh, moo di grand théâtre ci événement bi. waaye boobu ba léegi ñu ngi dajeeg ay ndaanana ah, Lirou Diane. waaw fekk naa la fi ci événement bi nga xamante ni saa su ne da ngay wane li nga xamante mooy monument géejawaay. waaw sa normal ñaari doomu géejawaay war ma la laataa ñuy ñëw ci yoon. waaw maa ngi lay fay di la ziar bu wér waa waa waa. waa Sénégal Buzz ak Univers Info Univers Univers Octo. Univers lan nga wax. Univers Info. Univers Info ñu kontaan ci teew fii. Eh. ndax nit ku ne amul lu fi nga dëkk nit ku ne amul lu sa gox. Eh. sunu doom sunu jarbaat muy kan. Eh. kii nu mu tudd kii. Bou Siteu war a jongante ñu ñëw il faut soutenir ko. Ngaaka Blindé sunu doom sunu rakk sunu jarbaat doomu Géejawaay. Mm-hmm. vraiment war a jongante moom ñu ñëw soutenir ko mm-hmm. man su ma ñëwee mel na Géejawaay gépp ñëw na. ndax damaa ñëw léegi ah gis Bombardier ñëw mu ñëw di soutenir waa Mbuur yi. comprendre nga. ay 2-0 ay yooyu waaye tey. Ah. ñi ñibbee du neex de. nga ne maa la ko mbii bi tey waa Mbour yi Bombardier moo leen indi. moo indi waaye man maa indi Ngaaka Blindé. maa ko indi. revanche Balla Gaye Bombardier tey moo amaat. ma ne maa indi Ngaaka Blindé. duñ jógee ba Mbour ñëw ba fii di yóbbu ndab li du am. mais waa Mbour dañoo teel a gañe waa géej waay ci mobilisation. Eh. gis nga salle bi nu mu mel. non non c'est pas vrai. xoolal waa géej ñii ñëpp géej waay la xoolal lii lépp. lii waay la ba fii. del wax dëgg. del ah, àtte dëgg. mais buñ nee waa Mbour waa Mbour yee ëpp ci saal bi del àtte dëgg ëpp ñu ci saal bi ah, ëpp ñu fi de ëpp ñu. am ministre des sports fi mel ni lii lépp génne waay la lii lépp génne waay la. lii lépp lii lépp xool lii lépp génne waay la lii lépp génne waay la. Ah, mi ngi ne lii lépp génne yow booy saytaan nga rek. mais man li ma fi gis bëriwul de yow li ma li ma Mbour génne waay ngi nii Mbour a ngi ne Mbour lii lay nit tribune bi. waaw génne waay lii lépp génne waay la. compte naa kaar yi. compte mooy géej waay li ma jógee ay 18 kaar la Mbour ay 60 et quelques. xamoo ci dara xamoo ci dara xamoo ci dara. atteel dëgg waay del atte dëgg. waaw di ñaanal Ndaka daal King Baba. waaw ndam li des fii. Ndakaaru Ndiaye. Laurent Ndiago nee na ci ci ci foie lay dóor bu si. ci lan ci amul de. loolu amul de. xeex la waaye foofu amul de. bu ndaanaan la bu champion la wóolu naa ko maa ko yar yoo ndaanaan la champion la. bu maa ko yar ndaanaan la champion la. champion la bu. daanaan la sa combat bi gars yi nga koy xaar de. waaw waaw waaw waaw fii Eric Fafa mi moo ciy wax ak man léegi léegi. yaa ngi tafaati la non non non waxul loolu de. waxul loolu non non non non yow. bëriwul maa doomu dàngu. lu tax damaa xeexul ak moom. mais fii la ñuy fay. waaw naa ne ay millions la ñuy fay waaye nan ma boole kenn ku gën a a may. man naa bëri booy yi. lu dama bëriwul ak ñoom dama xeexul ak ñoom. yaa leen mën wala ñoo Ousmane Diop Ousmane Diop. Ousmane Diop waaw moom laa soxla Ousmane Diop lan may jox ma riim moom fii ma rim ak moom. wulli waaw ba tey. lan la loolu du ko nangu barke Rasul loolu Balla wulli la nan ma ci anama bi man maa la ko wax. man maa ko wax. man maa ko wax nan ma ko jox ci yeneen ci rim bi amul déet a ma nga ama déet waaye dimbali ma ay xarit xarit boo ma la man damay wut xaalis ndax fàttaliku nga li xamoon gambi lan moo am gambi lan moo xewoon lamb la woon te parewu ma woon damaa parewu woon sax ñu ah, ajjuma laa jël avance bi dem samedi bëri dimanche. sérieux waaw te làmb la ma gagné ko bopp avertissement victoire noo ko amee baax na. Euh, waaw oui amul loolu de. fii amul bi yëq la rek xeex la rek xeexu mbedd la. fii dañoo door tapis bi rek ñu soog a waaw. waaw mais euh, euh, mais tamit du toog ak yow te duñu wax ci geste bu rafet bi nga xamante ne démb Sénégal yëpp seen xol daf cee sedd. waaw muy booloo bi nga xamante ne booloo waat na ko ci diggante Ama ak Balla Gaye. waaw gisee image nu mu la def. dama cee xam ne ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak waaw nee naa la saytaane waxul dëgg waaye yàq na xel mhm. koo ci toogal mu ne kii ne soo toogee kii kii ne sama rakk la nga toog kii mu kii ne sama mag la kon nag foofu dara amu fa xëy na ñàkk déggante rek moo war a amoon mhm. ak rek waaye ñoom ñaar ñoo bokk seen Casamance ñoo bokk mhm. seen Guinée Bissau ñoo bokk seen Farabara loolu mooy àdduna adduna amul solo yàlla na jàmm yàgg diggante Balla Gaye ak Ama la euh, euh, li nga xamante ni xëy na mooy distance bu ñu jëlante woon euh, wanewaat ni booloo mooy doole dëgg la ndax séparation bi ku ne am nga ci lu ñoom ñaar dañoo xamante ñoom ñaar xamante Ama mooy Balla Gaye Balla Gaye mooy Ama ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay ñoo bokk Double Less la woon ak Falaye Baldé mhm. voilà yàlla na jàmm sax seen diggante mhm. waaw yàlla na jàmm sax yàlla na continuer waaw yàlla na ko gisee sport bi fii Sénégal non tubaarkàlla xam nga nee naa la ñun Sénégal li ñu am dañ ko war a xam tubaab bi jógee bitim réew ñëw organise fi lu mel nii avant loolu làmb la njëkk a tëgg kon ñun Sénégal tubaarkàlla gàcce ngalaama ah man ñu baax nañ fee ñaar tubaab bi dañuy jóge fii ñëw fi takk fi soxna am fi kër ah am fi kër kon nag ñun li ñu am dañ ko doon téye nee naa xale jigéen nan toog seen peggu yaay yi. waaw xale jigéen nan toog seen peggu yaay yi ah téye ñu yor. téye li ñu yor. su boobaa tubaab bi su ñëwee fii senegal su leen bëggee takk ah. ah takk leen waaye suñu ñëwee rek ñu ànd ak ñoom ah. jàdd fii jaar fii jaar fii waaw waaw di par loolu baaxul day la takk day tax duñ la takk nan téye la ñu yor nan téye la yor waaw waaw ah, bañ ko def correction ndax fi mu ne suñu réew Sénégal dafa neex de Sénégal dafa neex Sénégal dafa neex Sénégal dafa neex parce que sëñ Bamba Sénégal dafa neex xalaat nga buñ ko organiser Sénégal euh, te dañ koy gis ci lamb ji xool tubaab yi fi nekk yëpp xool tubaab yi xool tubaab yi fi nekk biir ñun Sénégal est-ce international ñu daan mbër ñu jël seen yëpp sànni. waaw lii ak civilisation bi fi am nice organisation bi nga dem ci njëkk ak teraanga xam nga jàmm daal dafa neex. sport dañuy xam ne sport la. supporteru mbëri la lañ mën a jàng si biir. bari na bari na bari na bari waa Géeja way tubaarkaal li ñu def mobilisé bi dama cee kontaan ah, man su ma teewee teewal naa Géeja way gépp teewal naa mbëru Géeja way gépp bu Balla Gaye ak ñoom Lac de Guiers ak ñoom Alioune Seye ak ñëpp ñoom Gouye Gui ak ñëpp laa teewal ndax Bombardier ni mu teewalee waa Mbour noonu laa teewalee waa Guédiawaye noonu laa teewalee waa Guédiawaye te dañ ko bëgg a gagné mu ànd ñoom dañ ko bëgg a mu ànd ak ñoom dem ñibbi wax ji nga xamante ne waa euh, waxoon nañ ko Baba Ndiaye waaw Baba yaa kii digg Ndakaaru Baba Ndiaye mooy borom Ndakaaru Ndiaye nañ ko yaa day digg Ndakaaru astafurlaa eh booy dama la bul ma waxat loolu kooku sama rakk la nga wax la bul ma waxat Ndakaaru ah, mooy borom Ndakaaru waa ahlu birik ñoo ko ñoom ñoo ñoo fii day tey ñoom ñoo fi ñoom ñooy day ndakaaru tey laaboo ji waaw ñoom ñoo fi day tey laaboo ji mbuur Baba Ndiaye yaay borom Dakaru Ndiaye waa Lubrique loo leen woyal lu ma leen woyal eh. nan laaboo ji mbuur kontaan naa lii jërëjëf waaw premier combat amateur. Son adversaire représentera le Sénégal. Il s'entraîne au Big Boxing Club. Ses entraîneurs sont Famora Touré et Alim Sarr. Invaincu avec 5 combats et 5 victoires. Champion d'Afrique de boxe anglaise. le surnomme le fou. S pour force. O pour original. U pour universel. Dakar, accueilli comme il se doit.